buy jàngale fàttali dee buy fàttali ak dee wa qisaril amali ak gàtt bunt bi daf na la sa ci àdduna jërul guddal xam nga li lor nit ñëpp mooy mbébét bu gudd dana def nangam danaa def nangam danaa mel nangam danaa xegg fang sàngam bëri na lu waaye di mbébét su xamoon ne du ko fekkee konoon jaral dara waaye bëri na ñaawal deram def ci lu ñaaw def ci lu ne day ñëw rek dox digganteem ak loolu man ndax mosu ne la gis ndaw loo xam ne ma ngi ca marché ba di kirti kirti di mbébét rek boo toogee moom waxtaan ak moom mu naan la dama bëgg am oto am kër takk soxna defal sama waajur ak nangam nangam fekk moom vingt ans lay am wala vingt cinq ans lay am moom du am sax du toll sax fu muy sampee kër balaa toll fu muy sampee kër dee du gis leen loolu ndaw loolu wallaay su xamoon loolu kuroon mu dem jàngi xamoon loolu kuroon mu dem jaamu ji yàlla wala boo buy liggéey liggéey ba jaamu yàlla rek la ci def waaye xala du ko jaral yenn yi waaye xamaana ñaawaloon na ci def na ci lu ne te fekk moom du toll foofu sax bëri na lu waaye di kirti kirti bëri na lu waaye di yaakaar balaa ma fay xegg dee dox digganteem loolu loolu war nañ wax nga gàtt mbébét waxuñ la bul liggéey rafetaral wuutal mm-hmm. waaye wut bi daal la nekk jaamu yàlla mu wut bi na nekk wutin bu rafet te loo ci amit def ci la ci yàlla bëgg mm-hmm. saa yu dee ñëwee baax na ñaawal gi dañuy bañ te mbébét bu gudd dafay fàttaloo àllaaxira ku fàtte àllaaxira àddina jaral ko ko àddina jaral mu ñaawal ci ngir am ko mm-hmm. nañu fàttaliku dee mooy dog bànneex yi te dana dikkal kenn ku nekk ci ñun mhm. kenn du ci mucc rek laa moom dee ñëpp koy def kat ku ko wet dina laaj ko na bàyyam dalee ci aadama bàyyi yu bëri dee nañ noonu la ko bàyyi doon waxee xaala wax na allah àlla taala kawe ne mu ne nafsin bépp bakkan ba suñ bakkan yi ba sa bakkan mi yow muy déglu mhm. ba ci bakkanu ñëpp ci gën a màgg ci àddina bi bakkanam dugg na ci mm-hmm. kullu nafsin bépp bakkan yow mi déglu ci nga bokk mm-hmm. ñun ñuy wax ci lañ bokk mm-hmm. zaa'iqatul mawti aji mos dee la bisa ngi ñëw ñu naan diw ñu ne dem na ndeysaan loolu rek a ci topp xam nga tey ñu ngi nii toog ku nekk di wax ak moromam may wax ngeen di dégg ñu ngeen may gis ma leen gis waaye bisa ngi ñëw kenn danañ bëgg a gisante du mën a nekk ndax dem nañ bu waxtu ba jotee rek dem ñëw ana diw ñu ne ndeysaan wala bisa nga ñëw ñu ne ana diw rek solon kañ yi tuuru ndax sa yaram daw na cofeel gi nga xamoon ci moom waaye moo koo gis léegi mënatoo koo teg bët loolu jeex yow miy déglu yi foofu rek ana ana diw ñu ne dem na dee na te boo dee nag lenn rek ci topp gas ba mu xóot mm-hmm. suuf su poussière su pënd mm-hmm. ñu dugal la fa fa nga dëkkoon lum rafet rafet danañ la génn war waayi taar yi nga amoon danañ la génn mm-hmm. yaa ki gën a ñàkk solo ci kaw suuf yéen bokk nuñ leen def gas ba mu xóot rek ñu suul te su boobaa daraja amatul fa jëfa fayam daraja yi ak ak yëkkati fii ci waaye fële moom jëf ju baax rek fa am ci loolu kullu nafsin bépp bakkan daa'iqatul mawti aji mos dee la ñun ñëppay dee ñun ñëpp danañ dee wa innamaa tuwaffawna bu mu jeex mu yomb waaye yàlla wa innamaa tuwaffawna naka danañ leen matalal ujurukum seeni yooli jëf yowmal qiyaamati keroog bis penci kenn ku nekk ci yéen lépp lu def ci kaw suuf danañ ko ko fay mane bu doon dee rek mu jeex mu yomb waaye la ca naa dee métti doomu aadama bu jaaxlee amul lenn lu ko xettali mu xool kanamam gisul lu mooy safara xool ndey jooram gisul lu mooy safara xool càmmooyam gisul lu mooy safara xool gannaawam gisul lu mooy safara dana métti de te boo xasee de amatul benn jëf ju la mën a xettali kon góorgóorlu fii nga tuub delloo sa bopp ci yàlla tey def lu rafet sa digganteeg sa borom def lu rafet digganteeg nit ñi xam ne ala kulli haal bis dina nga laxas dem te boo demee sa jëf rek ngay fekk yàlla dana la ko fay ba mën sëkk yowmal qiyaamati bu ne fa man suuf si yaa kuñ soril ani naari ci safara woo du xilal dugal ko aljannata aljana kooku dee faqad faasa texe na képp koo xam ne yàlla solil na ko safara dugal ko aljana kookoy ki texe yàlla nañ ci yàlla boole loolu ay nga ñaay dëgg waaye àddina si de texe nekkut ci noflaay nekkut ci daan naa wax naan ne àddina ku ci ñëw rek mu ngi mel ni dugg nga ci saal booy defee imtihaan examen saalam examen benn matière bi mën naa yomb kalaat ba du métti wala matière ba jafe kalaat ba métti lañ soxla rek mooy tontu lu wér bu buñ cruiser nga am diplôme ba am na ñoo xam ne yàlla def leen yombalal seen àdduna waaye la yàlla bëgg moo ñu def ci lu baax xam diplôme ba moom aljana la wala ngir maa ne yàlla ñii yàlla daf leen teg nattu nattu lam lam lam soxla mooy ñu muñ xam diplôme wala wala wala boo ngir maa ne yàlla ku nekk ci kumpo nag xam nga ne xamagul dara risque bi moo nekk ci kanamam fekk diplôme bi wut xamu ko nekk nekk gu ci jàmm àdduna xéwal amul fii fitna amul fii ñëpp yàllaa leen nattu rek waaye xéwal dëgg mooy dugg aljana ku yàlla dugg aljana sori la safara kooku moom texe na nga xam na diplôme bi ñu doon wut wamal xayaatu dunya yàlla ne dee dundu àddina bi illa mataaul xururi lu may muy xéwal ak naxe naxoo mbaay rek fi nekk xalal ji ngay daw naxoo mbaay la lépp looy pugare woo di ko ndamoo naxoo mbaay la ndax mbaa xam ngeen ne lu waaye am rek bis dana ñëw mu mel ni amu ko woon li nga am sax yow ndaw li di ko ndamoo bis ngi ñëw booy dox da ngay mu mel ni mosoo am doole ba ma cee toll loolu rek ngay dégg comme que mbir yëpp ba ma cee toll la lépp da ko wan gannaaw boo ci tollee na rafet di la yàlla jox ci xéwal nga toll ca jamono ba nga cay toll na rafet ndax boo ci jógee jëf di rafet jooju dana la wall waaye boo ca tollee mu ñaaw jeex na mënatoo dabaatal xar kaame rekk nekk sa kanam àddina xewal na xalam maanaam xewal gune gu waaye am ci àddina fa mu mujj rek mooy ba ma cey toll masoon naa am yi jamono masoon naa mel nangam yonentu wax na ne yàlla xam na xëcc ci jaam yi du yëkkati kenn ci àddina lu may wàccee na ko bu la yàlla mayee taar bis ba mel ni mosoo rafet yàlla mayee kattan ba mel ni mosoo ko am bu la yàlla mayee daraja bi dina ñëw keneen la ñuy euh, topp ka yëkkati waaye yow dafay mel ni mosoo fee nekk dem leen ci kër ñi nga xam ne nañu dañ laa rëdd loo seen buntu kër di leen màggal ñu jigéey fa dafay mel ni mosu nekk kër diw wéet lool mel ni mbooloo mosuñ faa dajee xaddina lu yëngul lu ne rek dana dal lu xumb lu ne rek dana wéet lu daje loolu ne dana tas kon na rafet rek yàlla yàlla xiir ci rafetal wa qaala wana taala mu kaw mi ma tadri xamut nafsun benn bakkan maasa taksi bu ana lan lay fàggu xadan suba kenn su ñun lan lay doon suba ana kon looy bàkku ak di ndamu te xamoo suba naka lay demee bëri na lu waay yaakaar mu ne wallaahi du fa yegg bëri lu waay foog ne noonu lay mel wallaahi du ko mel bëri na lu waay yaakaaru ne dana ko xam te fekk wallaahi dana ko xam bëri na fu waay yaakaaru ne dana fa yegg te dana fa yegg suba suba ak yàlla la kon na rafet rek yaakaar gi nga xam bu mu tax ngay ñaawal ci nit ñi yaakaar ne yaa leen raw suba yaa leen fare kaw suba yaa doo soxla déedéet man naa am contraire ba mooy am ndax wa ma tadri nafsun ma sa taksibu xaddan amul benn bakkan boo xam ni mel suba ñu bëri la leen tax a bew mooy yaakaar li seen kanam yëpp a neex ndax li leen yàlla won ak li leen yàlla mayaale loolu tey la xamoo suba nu muy ñëwee yàlla moom mën naa changé nu ne kii wàcce buur yi kii yëkkati baa doole yi kenn xamul woon kuy fekk ku am mu xëy xëy ñàkkal ko ba mel ni mosul doon moom kuy fekk ku ñàkk ba mosul amul amul sax lu mu ndekkee mu xëy am ko ba mu nekk milliardaire may ko ba mu nekk milliardaire kooku rek ay buur mooy borom kàttan kon lu mu la mën a jox rek mën na koo nangu moom ndem dañ lay jox xamal ne ki la jox mën naa nangu kon bul bew suba xamoo ni muy demee waaye bul ñàkk yaakaar ku am baay du ñàkk yaakaar yàlla ëpp yërmande yow sa baay kon yaakaaral sa suba rek ne yàlla dana la dimbale wa ma tadri xamul nafsun benn bakkan ak kum mën a doon muy mën ak yéen maa saa bi lan lay fàggu xadan suba ñu tey lañ xam lan lañu am suba xamuñ ko kon nañ tey nañ tey te rafetal tey bu suba lu yàlla lu yàlla indi suba ñu sant yàlla bul jàpp kenn ndax yaakaar dara ci suba xamoo li xew koy jàpp jàpp ko te yàlla tax wama tadri nafsun bakkan bi ay ardin ci ban suuf tamutu lay dee kenn si ñun xamul fan lay dee fii nga toog di fa ndamu mën naa fu foofay sa waxtu dee mën naa am boobay sa jamono dee ndax dee day bett bu ñëw day bett mën na fekk sa digg waxambaane ngay calang calang di calang calang di cëlëng cëlëng rek malakul mawti ñëw daal di rocc roxo gi nga dee bëri na ku sol yéreem ca terrain football ba daw ba si kanam rek mu daanu dee bëri na ku xëy sol tëneem dem mu daanu dee bëri na taal otoom dégg waaw di ndamoo ko puugaree ko waaw di wanewu waaw dawal ba ci kanam rek oto bi ak def accident mu daal di dee ñu ne anamu ñu ne dee na ku toog njabootam di waxtaan kontaan lool dégg nga waaw am baneex am jàmm te rek xëy ñu ne dee na a ah, feebaru di dee ñëw dee moom bu ñëwee rek dee ñëw na bàyyiwut kenn nag comme que xamoo ban suuf ngay dee ak waxtu ban waxtu la fexeel saa su nekk nga nekk ci lu rafet loo ragal dee fekk la ca bu ca nekk xamewut mag ak ndaw xamewut buur ak baadoola xamewut wëli yoog saay-saay ñëppay dee ñëppay dee loo màgg-màgg bis dina ñëw ñoo man nga ne tekk ñu jël lex ba bàyyi rek lex ba tourné mu ne loo sa bopp dara bu njëkkatee taxawal bàyyi nga ne këlëb daanu buñ la yëngalul mënoo yëngal sa bopp loo màgg-màgg daañu la teg ci ab tadd hmm. daal di la jàppoo di xommat naan laa ilaha illallah laa hmm. yi loolu lay bàkk ak géwale loolu lay tagg yëpp fàtte nañ hmm. yàlla rek la ñuy loo màgg-màgg daañu gas ba mu xóot ànd ak daraja ànd ak sa xam ànd ak sa wilaya rek suul daal di la wan gën a balaa nga xam ne yàlla mag nga dem ci bàmmeelu kilifa di ko gas poussière bay jub nga jël ñaari photo yi xool fu mu dëkkoon ak fii ngay gas nga xam ne yàlla rek mooy ko màgg te su boobaa kilifteef amatul foofu nit ñi gi xemoo suuf moo wane ne foofu jëf rek lañ cay rawante waaye rawante wuñ fi doon jiw wala maa doon jiw nañu rafetal àdduna yàggut rafetal àdduna yàggut dama mel ne àdduna tey sax kuñ naan yaa ñàkk ful koo koy ku def lu baax ndax ñëpp bon léegi ba mbaax dañ koy jàppee ñàkk fayda mm-hmm. waaye defal lu baax rek bis nga ñëw nettali rek ci ngay mujj wa wana taala yàlla mu kawe mi ne fisa ja andem dikk na ajaluhum seen diir mooy waxtu wañu war a dee bu ñëwee laa yastaqiroon duñu leen yéexe saatan benn jamono wala yastaqdimoon te duñu leen gaawee dee waxtu dee buy ñëw rek benn seconde duñu la ko may dee rek mais moom ma bàttali amul loolu waxtu wi jot na aywa deel ah dooma may ma mottali sama procès naa mukk lépp lay dagg moom mooy xaadimul lazati bu bula fekkoon ci bànneex gi gën rëy mu dog ko moom dee ngoogu danañ ko fàttali bu waxtu wa ñëwee amul lenn loola ci loola tee dee bu ngeen xoolee rek xam ne mbir yi mbegul yàlla la ndax bëri na koo xam ne nii moyen bu ne am na ko docteur bu ne am na ko lu ne mën na koo faj waaye bu dee ñëwee kenn mu mënu ci dara dee rek bu dee xalal moo ko bu ñëpp bëri koo xam ne am bëri na koo xam ne dara waaye mu ngi fi rek moom kenn dara mënu koo rey moom feebar bu ne ñëw na muy gudd fan rek milliardaire bi moom balaa yàgg ñu ne deen kon yàlla rey te bu waxtu wi jotee moom dee rek yàlla du rey mukk bakkan te waxtoom jotugul mooy wala yastaqdimuuna waaye waxtu bu jotee du la may benn seconde comme que noonu la demee nañ góorgóorlu gërëm loo yàlla rafetal suñu digganteeg mbindeef yi balaa dee di ñëw mbaa xam nga ne lislaam ñaar rek la lislaam mooy màggal yàlla boo ci noppee doxal ci luy indil jàmm nit ñi loolay lislaam moo tax julli waree na ko fu mu commencé allahu akbar fu mujjee yàlla ngeen am jàmm boo màggalul yàlla loo defal doomu aadama yi yàlla gërëmut ndax da ngaa sàggane àq yàlla waaye soo màggale yàlla mu rëy ci yow te amoo mayoo jàmm nit ñi teg nga leen fitna ak naqar ak i xay yàlla soxlawut lan ko defal lay faye mbindee fi waaye julit pire mooy koo xam ne foo ko fekk mu ngi màggal boromam waaye lu jugee si moom jëm si mbindee fi jàmm lay doon koo koy julita loolu rek mooy julit boo nekkee lii yow àddina naxul la waaye lépp looy ndamoo lu dul lii ngi ci sànkute àddina ngi lay nax bu dee ñëwee rek nga rëcc ko wallaay lépp lu waaye di xëccoo mu jaral ko bu dee demee ñëwee ba taxaw ci kanamam mu rëcc ko lépp lu rëy ci yéen rek dee ñëwagut waaye wallaay bu dee ñëwee ngeen rëccu lépp nañ rafetal ba dund nañ dabaatal ba ñuy dund nañ tuub ba ñuy dund mën ñoo passé ay nit ka ay nit lan de bu ñu ne ñi nax dañu léeg-léeg dañuy dem ba bëgg laa def yàlla te yow sax sa àdduna naka lay demee wallaay bëri na loo foog du demee noonu xamoo affaire yi naka lay deme yow jàppeel sa bopp jaam comme jaami yàlla yi loolu yàlla na toog nga muñ bu la joxee xéwal nga sant ko waaye ñaar yi bu ko yàlla def lu rafet mu jëm ci mbindee si fekk yaa ngi ci loolu yaa ci jaamu yàlla te àddina naxagul la wa qaala wana taala yàlla mu kawe ak moo ñu yërëm waxee naag ñun mu ne ne yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi yàlla ku ci génn ñi gëm yàlla dugg nañ ci biir laa tulikum ngeen la leen soxal am waalukum yittewoo seen doom seen alal yi am waalukum yittewoo seen alal yi wala awlaadukum du caageen yittewoo seen doom an zikri laahi wala sudu yàlla ne ngeen la ngeen la bu leen yittewoo alal yi àdduna ba fàtte maa jaamu ngeen la bu leen yittewoo njaboot bi ba fàtte maa jaamu booy liggéey ngir wut alal boo waxtu julli jot demal julli mënoo ñàkk wut àddina gaa waaye bu mu la tee jaamu yàlla bëri na ñoo xam ne wutam àdduna yàq na seen xol luñ ca wut xamuñ ko rek ko nga xam bañ nañ ko wut bu ñaaw lañuy wut ña ngay yàqante ña ngay weqante ña ngay dóorante ndax mbiri àdduna ñooñu kay xam nga ne wutam alal ak wutam xewale àdduna fàttaloo na leen yàlla rek laa yàlla yéen bu leen loolu dal waaye par par looy njaboot bu mu leen fàttaloo yàlla a ah, sa doom du sama doom xaaral ma dem sa doom xaaral ma jëm koo yàqal noonoo googu ngel la bu leen njaboot dugal waaye bëgg loo jox njaboot gi it tax nga def lu xaraam di sàcc wala ngay xiif ci xalal ba jaamootoo sa borom wala sa doom yi def rek neex na la jub naam jubut baax naam baaxut yaa ngi ànd ñoom rek bu leen def loolu bu leen xalal yi àddina yàlla yàlla ne man yafal ku def zaalika loolu foo laay ku ñu ne gaa yi moom ñoom alxaasiroon ñoo def ay perte ñi képp koo xam ne wutam alal ak wutam njaboot moo tax jaamoo yàlla kooku perte ñoo ñooy ñi pertal wa anfiqoo na ngeen dépassé yàlla ne yéen ñi am dépassé leen mimma razaqnaakum ci lañ leen wërsëgal min qabli an yaatiya njëkk muy dikkal ahadakum kenn seen almawta almawtu dee li ngeen am def leen ko ci lu neex yàlla balaa dee di ñëw li nga déggam na ngeen jaamu yàlla balaa dee di ñëw bu ngeen dee bu def lu baax de te su boobaa du ngeen mbébét mukk lu mooy delluwaat ci yàlla pour def lu baax du ngeen ne yàlla may ma delluwaat ngir am alal wallaay doo ko wax danañ ko jàng bu dee ñëwee doona yàlla may ma delluwaat ngir xëccoo daraja ya bu dee ñëwee doona yàlla may ma delluwaat ngir xëccoo kër ya bu dee ñëwee doona yàlla ma ma delluwaat ngir xëccoo taari àddina yi bànneex yëpp ngay fàttali nan yàlla dimbale ma rek delluwaat ma ci àddina ngir ma mën a jaamu yàlla kon ba nga fay nekk na nga jaamu yàlla ndax boo fi jógee da xam ne loolu rek am solo na ngeen dépassé ci leen yàlla jox balaa dee di ñëw fa yaqulu waa ji wax naan rabbi yow sama borom law laa xartanii yellantikoon nga muñal ma yàlla yéexe ma ilaa ajin ba ci ab diir xaribun bu jege muy wax ma taar la ma gën a góorgóorlu ci wut alal ma gën a góorgóorlu ci noos yi ak taari àddina yi ma bànneexu ji yépp fàtt na ko gis nga waa ji nga xam ne dafa toppoon bakkanam nekk ci lu ko neex àdduna jeey ko di ko puguréwoo di ko ndamoo bu dee demee ba taxaw ci kanamam muy sukuraat gis allah xira lépp lay fàtte dana fàtte soxna ya dana fàtte doom ya dana fàtte alal dana fàtte bànneexi àdduna ya dana fàtte nguur ga dana fàtte daraja ya dana fàtte màggal gi ni nit ñi doon màggal yëpp lay fàtte daf naan rabbi may ma ila ajalin qaribin ma des fi ba ci ab diir bu jege wallahi su boobaa fa asadaqa dana ma saraxe danaa joxe asaka jef lu baax waa kun dana nekk mën a saa ay ci ñuy baax ñi ñuy aj ak jef lu baax lii rek lay mbébét léegi li nga xam ne boo demee bay dee moom ngay mbébét pour defaat ko yaa ngi nii di nekk ci léegi yaa ngi dund nekk ci léegi ndax dee ngi ñëw de te wallaay dee dëgg la te la ci gannaaw dee moo gën a métti boo dee amee nga xam ne kenn amul solo yàlla rek am solo yàlla nañu yàlla jubal gis nga àddina noo mën a def am naqar waaye lu métti métti dana neex kon nañu muñ tey sant yàlla waaye bu mu ñu tee rafetal rafetaloo rek yow bul tooñ kenn soo mënee dund ba génn àdduna fekk amul benn xol bu jàq ñu ne yaa ko jàqloo amul benn ronqañ bu tuuru ñu ne yaa tuur amuñ kenn ku am problème ñu ne yaa ko ko teg defal ndaw lu rafet ndax yóbbaale àllaaxira xol bu set yóbbaale àllaaxira loxo yu weex tàll moo gën yóbbaale fa loxo yi takk ak àq doomu aadama yi soo mënee dund ci àdduna nekk pomaat boo xam ne góom bu gaañu rek nga faj ko mu wér xaatir bu nar a damm nga jàng ko jubbanti ko ronka ñuy tuuru nga fomp ko njàqare goo gis dindi ko soo mënee nekkee noonu ci àdduna defal looloo tax yàlla bind la ci yaa ngi ci li tax yàlla bind la bu la àddina jeeyee nga di ko mu jaral la lool ba tax nga belee say doomu aadama ndax lan ndax sa bànneexi bopp nga tuur ay ronqañ ndax lan ndax sa bànneexi ay xaatir ndax lan ndax sa bànneexi toroxal ay doomu aadama ndax lan ndax sa bànneexi bopp dagg mbokk ndax lan ndax sa bànneex bokk bisa nga ñëw da ko wéetoo ak sa borom te su boobaa da nga rëccu rëccu goo xam ne mënatoo koo dabaatal te boobaa la nga doon xëccoo yëpp ba tax nga def yi ñaaw yooyu jeex na buñ ko tegoon sa kanam sax soxlawaatoo ko ndax amul njariñ àllaaxira lu mel noonu bu mu la jar ñaawal defal lu rafet rek ndax bis dana ñëw nga jóge fi luy jeex jarul xëccoo luy jeex jarul ñaawal rafetalal rek yeen yàlla digal dëgg la nag man ngeen a moytu lu leen lor waaye bu leen lor kenn ki nga xam ne nag moo lor boppam ci yéen yéen mënu leen si dara am na jaamu yàlla yoo xam ne comme safara lañ mel ñoom benn ñu lakk la rek wala ñu lakk seen bopp maanaam ñu dañu ñëw ànd ak yow lor la boo moytoo ñu lor seen bopp moytu na dara nekku si waaye bu leen lore bu leen tooñ te bu leen sàgganee ak yàlla yéen a ngi dund profité leen def lu baax ndax bu dee ñëwee loolu rek ngeen di ne yàlla delloowaat ma ci àdduna yàlla dimbali ma yàlla delloo ma delloo ma delloo ma dimbali ma rek ngir yàlla bu ma demee danaa def lu baax danaa saraxe danaa jaamu yàlla waxut danaa noosi de kon yooyu amul njariñ buur tontu leen ne walan wàqee du yéexee allah yàlla nafsan bakkan ida jaa bu dikkee ajaluhaa diir bi yàlla ne mukk ku sa waxtu jot dee rek du ma la may benn temps jaamu leen yàlla ba ngeen di dund waaye bu waxtu bi jotee dee rek wallahu yàlla xabiirun aji dañ kumpala bi maa taamuloon ci li ngeen def te lépp lu ngeen nekkee man xam naa ko xam naa seen xol yi la la ngeen yéene jaamu yàlla xam naa de xam naa li ngeen def la ca feeñ ak lu nëbb te danaa ko fay kon ku nekk na xoole yaay kan ku wéet xam sa bopp léegi boo xoolee yaay kan la ci ñaaw dabaatal ku weesoo gut weesoo am nga temps fekk yaa ngi yaa ngi rek war ngaa mën a dabaatal def lu baax balaa dee di ñëw balaa dee di ñëw addina bi yàlla bindu ko par hasard de ku nekk def lu la neex rek mu mu jeexee noonu mukkul àdduna kenn ku nekk la ngay def rek dañ la ko fay moo tax ne soppal ku neex waaye bis dina ñëw ngeen tàqali defal lu la neex waaye dañ la koy fay dañ la koy fay de yàlla ñu may yalla yalla yalla jubal yalla yalla yàlla ci jikko bëgg ak yim gëreem ta sàmmal ñi boppam jàpp leen tak takk bii ne ndogal yalla la ndogal ken mënu ko daw la ngeen wara dund lo rek ngeen dund kon bu len leen tey rafetal destin la di moytu bu len tax mo yalla bëgg dara bu len tax ñaawal di len xol li nga xamne buñ len ko defee mu naqadi len ngeen bañ koo def mbindeef yi am yi dee leen li nga xam ne bu ko nit jëflante ngeen mu neex leen ngeen jëflante koog mbindeef yàlla yi su boobaa rek ngeen jaamu yàlla yu sell yàlla ñu yàlla mel noonu ñaare su ngeen mel noonu yàlla leen di sàmm ba ku leen bëgg a yàqal yàlla musal leen ci loolu la yàlla wax yonent da ko gaañi buñ pour andi jàmm fekk si leen ci bu dee dañ laa bëgg a nax nag yàlla ne yow wakiilul ci yàlla yàlla lay dimbale wa in yuridu an yaxdauka fa inna hasbaka allah waaye jamono tey bopp sa bopp rekk fi am ba soron xañu di jeex nit ñi faalewu ñu bëgguñ kenn da ngay dégg ñu ah, moom ku nekk sa bopp nga bëgg mhm. ñoo bon yàlla binduñu pour ñu bëggante yéen ngeen xoote ci bopp sa bopp yéen a bon yàlla binduñu pour ñu dimbalante ngeen xoote ci bopp sa bopp yéen a bon yàlla binduñu pour ñu jariñante ngeen xoote sa bopp sa bopp yéen a bon la ngeen nekk xam nga ne yàlla santaanu ko de te bu dee sa bopp rek la ñor bu dee nit ñi fekk see nga sonn ndax lu bari ci nit ñi nga ko jëlee kon nañ bëggante nañ dimbalante nañ jàppalante nañ defante lu rafet ndax lépp ci nettali lay mujj hada in uridu illa islam astaxtu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh